il faut ñu éviter lii dal nañ fi ay nit dee fi tey su fi ay nit dee eh, xoolal li ñu def bombe lacrymogène lakk pëne yi fi def man damaa mujj tiit sax dama mujj tiit. Eh, ngoon si parce que lii mënoon na jur loo xam ni. ci bëccëg bi yëpp mënoon na jur loo xam ni ñun ñëpp du ci arrangé kenn. loolu loolu tegul ko fenn nan delloo ci xel yi. kenn nit ñi parce que président Macky Sall man xam naa ko bu baax. nit ku sensé la nit ku kii la xam nga léeg-léeg ñu toppoo dégg nga dafa dëgër boobu dafa truc tel tel mais nag xam nga nit il faut nga am président la république euh, ñi mu nga gàkkal leen. moom nga weexal ba tànn ñu jëpp du ñëpp ñëpp gàkkuñu mais daf ci am ñu gàkk ñu yàq. xam naa ci mu àndal. moom la ñu fal da ngay da ngay am considération il faut que ñoo àndal même suñu la falul man sama li may liggéey am naa ci ay collaborateur su ma leen dégloo ma naan ma yàqal. waaye le dernier mot yow la revenir. waaw man la revenir. mais léeg-léeg nag ku dul juum amul ah yàlla rek a dul juum. mais man xam naa ni le président Macky moom intact zéro faute. mais nag ñi muy àndal am na ci ñoo xam ne ñoom ñëpp xamante nañu sax seen biir ñoom ñëpp xam nañ ni ñu suul ndaanaan la ma <laughs> alors euh, euh, monsieur monsieur Mboup Massour euh, est-ce que une convocation ci procès boo xamante ne Barthélémy Diaz moom moo sàkku ñu def ko appel waroon na jur coow li jur violence bi ñu gis tey. Euh, waaw Fatou Abdou merci ci question bi je crois que une simple convocation jarul woon coow li yëpp am di am parce que comme ni ko monsieur Mbengue waxee donc. Euh, Euh, Sénégal dafa nekk un tout petit pays boo xam ne nit ñëpp ay mbokk lañ te dañoo am ay valeurs yoo xam ni c'est des valeurs que nous partageons mhm. mais yàlla bu la falee def la njiit il faut être au-dessus de la mêlée Barthélémy Diaz bu yàlla tuddee ni moom mooy nekk maire kenn mënul fexe ba du nekk maire moom ci boppam moom moo demandé appel il a demandé à être jugé pour seetal deram donc ki def loolu bañul dem wuy ji mais suy wuy ji man je ma demande pourquoi est-ce qu'à chaque fois que nit ñi war a dem wuy ji justice mais police nekk ci tali bi mais loolu il faut ñu xoolaat ko les les force de sécurité et de défense au Sénégal sont suréquipées mais moyens yi ñu génnee mais loolu lan moo ko fi jar mais gars yi ñu ay terroristes duñu ay bandits man mii di wax ak yow j'ai participé à X marche. Mhm. gis nga bu ñu ñëwoon suba dañuy dem marche palais su fa policier nekkul nit ñi dañuy dem ba buntu palais demaat ñibbi. parce que nous aussi nous ne sommes pas un peuple de sauvage duñu ay sauvage ay nit lañ mais force de l'ordre yi ñoom ñooy excité jeunes di sànni ay grenades lacrymogènes loolu mooy tax marche bi fi am dafay dégénérer ils doivent être des forces républicaines su marché amee ñu encadrer ko dans la discipline su amee ay nit ñoo xam ne c'est des téméraires ak des récalcitrants ñu jëm leen contenir ba marche bi jeex ñu bàyyi leen ñu dem mais aussi li ci li ma ci gën a regretter mooy mm. le fait qu'à chaque fois ñu bëgg jël affaire bi di ko renvoyer waat nga convoqué nit ki mu préparé wu ba nekk ci yoon bi ñu ne ko mbir mi renvoyé nañ ko mais ça aussi ça atteste d'un manque de sérieux notoire de la part des autorités judiciaires de ce pays là et ça il faut avoir le courage de le dire Barthélémy Diaz convoqué nañ ko mi ngi dem wuyu il n'avait pas à à, l'audience ba pare li ma ci jaaxal mooy mais barte est un maire. mais mais procès bi xam nga 9h 9 la tijji aussi. waaw mais mais bu bu fekkee ne mi yeex na dem ses avocats étaient sur place même si dañuy wax en matière pénale il faut que moom ci boppam bi nga xamante ne moom la ñuy jugé euh, mu teew mais comme teewul ba waxtu wi jot est-ce que du loolu moom moo tax. Euh, peut-être ñu renvoyer le procès. Euh, parce que renvoi bi motif bi mooy avocat. partie civile bi ñoom ñoo teewul woon ci li nga xam ne moom mooy procès bi. waaw na nekk un motif et sur le plan mm-hmm. li ma bëgg a xam mooy. mais Barthélémy Dias c'était un maire en exercice de ses fonctions ñu fekk ko ci mairie bëccëg ñëpp di ci teg seen bët des agresseurs envoyés par le pouvoir d'alors le pouvoir lay Wade ñu fekk ko ci maire armée mais tey jii si Barth n'avait pas tiré mais pour se protéger tey bu Ndiaga Diouf bu doon Ndiaga Diouf moom moo rey Barthélémy Dias mais kenn du mës a xam kan mooy Ndiaga Diouf parce que état moo ko yónni ce serait le flou total heureusement que Bat moo tiré il n'est pas dit que moom moo ko rey il a tiré ne signifie pas que c'est lui qui l'a tué parce que nag il faut que les gens fassent la part des choses parce que bi mu tiré comme on l'a dit gisuñu kenn ku fa daanu gisuñu kenn ku fa dee c'est après qu'on a appris que Ndiaga Diouf était mort mais loolu nag su amee man personnellement man laa wax de man xaw ma Bart xaw ma keneen man ku ma fekkoon sama mairie yónni ay nervi ñu bëgg ma attaquer si je peux tuer tous les nervis man dama leen di rey sans état d'âme parce que man je préfère dix mille nervis morts que de un maire qui au service de la république ñu koy rey man loolu mooy sama gis-gis parce que les